ayca ñu dem daal di koy door ak Vox Populi journal bi xëy daal di addu ci rapporter bi nga xam ne daal dinañ koy def présidentielle bu quatre ci réewu Sénégal surnal bi ne nag ci jamono ji mbir yi nag jéggi na frontières yi ña nga xam ne ñoom ñooy États-Unis ci jamono ji li ñuy sàkku moom mooy nag ñu amal élection yi ci date bi nga xam ne moom la ñu ko jàppoon moo tax nag ñi ngi sàkku ci nguuru Sénégal ngir nag mu amal élection yi daal dina koy jaarale ci li nga xam ne moom mooy charte réew mi ñoom nag jàpp nañ ni woote bi nga xam ne moom la ñu amal keroog foofee ca pencum ndawi réew ma nanu ko jàppee nag jaarul ci yoon ndax nag ci anam yi nga xam ne moom la ñu ko amalee moo tax nag ñu bëgg ñu daal di nag amal li nga xam ne moom mooy élection yi le témoin yéeni kaay di feelu vox populi ci mbir moomee na ci jamono ji communauté international soobu na ci jafe-jafe bi nga xam ne am na ci réewu Sénégal CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest li muy sàkku ci réewu Sénégal di respecté calendrier électoral moo tax 24 heures yéene kaay ne CEDEAO ci jamono ji nag tàbbi na ci mbir mi daal dina ci wax l'indépendant yéene kaay ne CEDEAO nag soobu na ci crise bi nga xam ne moom moo am ci réewu Sénégal journal bi ne moo yey lii quotidien journal groupe origine sa ne ñu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest jamono ji kay amaat nañu beneen jafe-jafe ndax nag bu yàggul Mali Niger ak Burkina Faso wone nañ nag ni dañuy génn ci biir kuréel te nag ci jamono jii ñi ngi nemmeeku ay jafe-jafe ci réewu Sénégal moo tax nag ñoom li ñuy sàkku moom mooy ñi nga xam ne ñoo sekk politique ci réewu Sénégal ñu daal di nag aju ci lu lépp lu jëm ci wàllu calendrier électoral journal bi nag di laaj ni ndax Sénégal duñu ko teg ay daan l'observateur le journal du groupe Futur Média ne dina am daanam du am waaye nag nañu jàpp ni moom am na ay njeexital ci wàllu koomu réew mi waaye it di bërëb yoo xam ne jàpp nañ ni mbir mi mën na cee indi ay jafe-jafe Walf Quotidien ca booba jamono ne ñu njiitu réew mi Macky Sall naam nag reporté nañu élection yi waaye ci jamono ji nag ñu bëri won nañu ko ginnaaw enquête yéene kaay ne société civile kay yemul rek ci mer ndax nag nee nañu dinañu amal ay rassemblement pacifique ngir nag wane seen ñàkk ànd ak bile report l'info yéene kaay ne ñeneen ñoo xam ne it mer nañu moom mooy universitaires yi ci jamono ji ñoom it wane nañu les échos yéene kaay bu nu ubbee journal bi ci xët bu njëkk bi nañ fa fekk ay kaddu Abdou Mbow moom nag ci jamono ji nag moom moo yëkkati ay kaddu ah, ne nag la nga xam ne def nañu ko ah, foofee ca pencum ndawi réew ma lan moo tax nag ñu daal di jël dogal daal di jàppale waa parti démocratique sénégalais waaye nag di xamle ni nañu jàpp ni nag génn ñu année électorale ndax nag nañu jàpp ni bés bi képp lañu puus waaye ba léegi ñi ngi ci 2024 duñ ci génn mandat yéene kaay daal di njàng gi di ñu xamal ni Rose Wardini candidate bi nga xam ne jàppoon nañu ko te double nationalité moo taxoon ñu téye ko ci jamono ji am na liberté provisoire waaye nag dafay des ci controle judiciaire bés bi le jour moom dafa dugg si indaale aw laaj ne njiitu réew mi Macky Sall digganteem ak Amadou Ba ndax nag na mu meloon la mel waaye nag ci jamono ji wala leneen la ñuy séentu ci diggante ñaar ñile waaye lu ci mënti am nag lu tawut a xam dafa yàggul direct news moom di fàttaliku ndem si yàlla Cheikh Anta Diop gi nga xamee ni nag génn na àdduna juróom-ñaari fan ci ci weeru février la woon journal bi ne moom moo nekk nag l'homme du carbone 14 dañuy jeexal ak l'observateur journal bi ne lii mi nga xew foofee ca Kolda douane bu réewu Sénégal moo teg yoxoo lu tollook 900 millions ci ay faux